base ci ban base ci ban base lañ leen di. maintenant dama lay laaj d'habitude ci lan la ñuy convoquer journaliste su nekkee déclaration am la wala papier bu ñu bind bu génn ci journal am la wala leneen la n'est-ce pas. Hmm. parce que man ci li ma li ma jot comme information c'est par rapport à un article bi génn ci ci ci ci ci organe de presse am. Hmm. c'est par rapport à un article. Hmm. parce que fi ñuy waxee outrage à un magistrat c' est peut être c' est quelque chose boo xamante ni bind nañ ko ci article bu génn ci journalam peut être looloo tax ñu convoqué ko mm-hmm. est ce que yaa ngi comprendre mais man duma taxaw fii mukk Birima ne Serigne Saliou di journaliste je n'ose pas le dire aw ma mm-hmm. sañ-sañ bi parce que ci presse bi laa ko xamee gis na def na ay organes yu bari ba nekk directeur de publication donc côté boobu moo ma ci wax mais nag li may wax mooy yéen journalistes yi yéen a taxaw ne nañu organiser milieu bi génne ay carte de presse. na nit ñi daw wuti carte de presse.